te l'erreur les gars loolu dootuma ci bi dañ jàll ci leneen quoi franchement. jàll ci leneen. Euh, leneen peut-être mooy euh, plateforme jubbanti. Hmm. nga xam ne ni toujours ci wàllu justice. Hmm. parce que régime bu fi jógee tamit euh, doxal ñoon nañ leen baaraamu tuuma ci wàllu doxalinu justice. Hmm. donc ñoom indi nañu benn plateforme bu tuddee jubbanti pour en direction du dialogue du 21 mai. bi nga xam ne ni dañ ko consacré. la justice nee pour euh, citoyens yi aussi di mën di yëkk seen xalaat di ko wax ci nu ñu gisee seen justice su réew euh, doxalin boobu noo ko. écoutez loolu lu baax la mais damay bañ li daloon Macky Sall am Mbodiène bi mu waxee nag pour ñun la mhm. yaa ngi dégg finalement euh, ça n'a pas servi véritablement à grand chose mhm. hmm? comme ñoom ñoo ko lancé en prélude aux assises. de la justice non du dialogue national nga xamante ne liñ ci jublu mooy jëlaat justice ak population bi boolewaat leen ñu nekk benn maanaam jubal leen maanaam jubale leen moi je pense très honnêtement moi je pense très honnêtement que loolu lu baax la léegi nag nañu xaar ba xam fii ak un an deux ans ñoom ñi ànd di liggéey bu seeni rapport génnee lan moo ciy nekk ak la cay nekk mooy lu ministre wax taman ma gëm ko yàgg koo wax tey sama benn jigéen bu mu waxee fàttali mais amul sens ñu def rapport documenté ci ay faits yoo xamante ni bii c'est horrible warul nekk après ñu jël ko denc ko loolu man gëmuma ko léegi nag comme ñoom ñoo ko lancé ci parle en dans l'histoire comme la di l'adage wolof ku wax feeñ nañu xaar mbir yàggatul léegi ñu def fi un an buñ fi taxaw nag di wax ay waxi politique parce que auditeurs yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon dama am ñu ma ci xam ñoo kon ne di fi nekk ba léegi ñooy def les rapports ñooy def lépp attendon de ce que demain sera fait et à l'aune de ça moi Serigne Mansour je serai invité à les juger wala ou bien à, à, à apprécier autant pour moi parce que jugement c'est un peu fort euh, mais euh, parce que le ministre de la justice def na benn sortie par rapport à ces rapports là mais ñu des ci le dialogue du 28 mai mmh. le dialogue du 28 mai gëm nga ne dina doon benn dialogue bu inclusif. non man parti yëpp dinañ ko teewee. xoolal nañu bàyyi ba le 28 rek loolu mardi. mardi prochain kii nañu bàyyi ba le 28 ñu xool parce que li ñu soulever mettre ko en branle mettre ko en marche mooy justice ak les justiciables et les justiciers danañ leen boole ñu doon maanaam ñu jubale leen loolu du dara xam nga loolu mooy lan ñu fexe ba sénégal yi léegi wóoru justice. loolu kese la mais xam nga valider un préjugé selon lequel mbisaan dafa ma tooñ jarul may dem ci justice parce que moo ma gën a gudd loxo su ma demee dañ may daal loolu moo baaxul te loolu la sentiment la boo xamante ne Sénégal yu bëri dañ ko doon partagé dañ bàyyi ba le 28 daal donc je pense ku ñu jox sa carton d'invitation bu la Sénégal <laughs> ñor euh, ñoree mais di ko dem yaa ngi dégg léegi nag boo demee après y aura des commissions et cetera et léegi la fay génne ñu tënk ko mu ñu boole ko ci li nga xamante ne bii man jàpp naa ne dafay enrichir encore le projet léegi nag ñu xaar un an ba rapport génn ak ñoom seen plateforme ak li ñu wax ak li ñu diggoon sénégalais mais sëriñ bi yow xam nga ne boo ma dama ciy wax yow loolu xam nga ko sax. Euh, le ministre de la justice Ousmane Diagne def mm-hmm. benn entretien ak suñu naataangoo yu APS. Mm-hmm. donc rapport yooyu nga évoqué sànq nee na dina am ay poursuites judiciaires euh, sans faiblesse et en toute objectivité. loolu samedi fii laa toog wax ko ci ëtt bi ne leen Ousmane Diagne en privé ce qu'il a di c'est clair je fais l'état des lieux du secteur su ko defee su ma génnee wax wax ju am solo teg sam tey moo nekk à la une du soleil autrement di journaux yu bëri dañ ko reprendre tu comprends man Ousmane Diagne moom man awma ci moom xel mu ñaaw wax dëgg ne yàlla wóolu nga ko. waaw yàlla sax la ñuy wóolu mais dama ne rek awma ci moom xel mu ñaaw école bi mu jàngee primaire man foofu laa jàngee ça ne veut pas dire que ñoo bokk génération école Clémenceau la jàngee noonu la tuddoon bi ma fay jàngee mu tudd école Iba ba ki ma xam ni mu ko waxee avant mu koy wax jàpp na noonu la war a demee moo tax mu wax tu comprends donc en réalité <laughs> mais affaire bi warul bett kenn parce que c'est pas normal sama benn jigéen encore mu may fàttali sànq dama yow li yàgg nga koo wax sax mais du yoon ñu ne rapport diw mii recommandation buñ ko dénkati dara ñu def le ministre dafa war a am suite judiciaire ñu téye rapport bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom moom bu ko waxee bu ko waxul noonu la war a demee d'autant plus ko wax na ko donc ba pare avec élégance disculpé wul kenn inculpé wul kenn mais rapport yi li ñu wax sénégalais yëpp gis nañ ko te bu fi kenn politiser ko amul politisation amul dara dara dara ku def ba yoon xam ne dangaa def noo sëriñ bi demal nga jéem a waxtaan ak yoon autrement dit demal nga yay juge indi say preuve boo ko amul aussi tamit daani daani mu ngi fi ah waaw te bu kenn politisé. di woote politisé loo jublu ci wax. non wax ji daal foofu la yem aw ma lu ma ci firiwaat bu ko kenn politisé un point c'est tout kuñ ci wax nga dem wuy ji après mu jeex misaal li may wax xam nga. Euh, message boobu ku ko moom waa nguur gee. man pare naa ci amul politisation des dossiers dañ dem wuy ji yaa ngi dégg ci seen aqulaay taalaay ñu wax jarul lekk fii nag di jooy ak di ut ku la jàppaleeg ut ku la dimbaleeg rendi ay nag ak génne sarax taxul ngeen génn ci dem leen wuy ji voilà peut-être après tabaski peut-être avant tabaski mais poursuite moom dafay am non mais attends li xew sëñ bi dafa ëpp te gars wuy ji un point surtout voilà am na benn arrestation le maire de Sindia donc euh, ah. moom woon nañ ko. ci ay communes kooku kooku li ñu ko bindal yëpp bu dee moo ko def sëñ bi kooku tamit. Thierno ah, ko bindal yëpp. Mhm. li ñu ko bindal yëpp bu dee moo ko def. moom bëri na mais nañu waxante dëgg quoi au fait. bëri na trop. Sonatel yow ay ponkal quoi au fait. Mhm. question mais en fait c'est de dire. mais kooku li ñu ko bindal yëpp bu dee moo ko def. sa vie elle compromise très compromise d'ailleurs. li wax nga dëgg quoi en fait tudd ñu la tudd ñu ma. moom la ñu tudd bu ko kenn politiser nañ bàyyi liggéey justice dem jusqu'au bout su ko defee buñ ci génnee bu ñu fexee ba sàccum xaalis bi des ci réew mi kese sëñ bi yow mën nga am salaire cinq cent mille un million da ngay dawal oto ak yeneen ak yeneen parce que réew mi ni ñu jàppee ne noonu la ndóolee c'est pas vrai dafa am benn élite rek caporaliser vampiriser affaire yi jàpp seen njàngoor Ndiaye Fatou Diagne aussi moom it tamit euh, am rapport bu ko épinglé. ah nañ xaar rek après am nga épinglé nit ak. Euh, ak euh, condamnation inculpation mandat de dépôt mu ngi fii ak yeneen ak yeneen quoi pour ñoom ñëpp daal de manière général moi je pense que nañ bàyyi yoon def liggéeyam. Mm-hmm. ku ci nekk mm-hmm. dañ la dénkoon ku ci nekk da nga war a rendre compte après on verra. parce que sàccum xaalis moom. yàgg na ci réew ma ah, ñun bu ñuy nekk gone jamonoy parti socialiste Abdoulaye Wade bu bu ñëwee ñu ne na topp waa PS ñoom ñu dem Macky ñëw ñu ne nañ topp waa PDS hmm. waa PDS dem waa Macky dem ñu ne ñu fi nekk nañ topp waa Macky et cetera et hmm. léegi nag waa léegi xolal ce cercle infernal la hmm. bi nga xamante ne bii régime bu dem ñu topp ña fa nekkoon pour mu jeex il foog que lijjanti loolu ba xam ne ñoom topp yu njëkk yaa baaxul. non xaaral cest à ba xam ne ñoom. du ñu xalaat def luy tax bu benn risque ñëwee di leen topp. moo tax seen plateforme jubanti euh, bii nañu fexe ba bu nekk cosmétique rek bu nekk parfum bu nekk lait de corps na nekk plat de résistance bu wóor non non non je bu mu nekk ay affaire cosmétique de na nekk affaire bu dëgër huile d'olive bu je xaw ma nu ñu ko mën a tuddee mais na nekk lu dëgër lu consistant ba nga xamante ne bii ëllëg ak si biir sénégal yi dañ ciy gindiku ça doit benn genre miroir voilà mhm. benn sol buy tax tey boo waroon def malversation nga ni yii saa yi plateforme jubbanti de mhm. yaa ngi dégg euh, bi nga xamante ne bii vraiment moom lañ lay taayalee par exemple euh, dialogue national assise beeg affaire yooyu justice réconciliation population sa waay mhm. non non lii mënul nekk cest à nañ fàtt fépp rek demande Euh, beneen bi mooy euh, pétition bi nga xam ne ni Horizon Sans Frontières moo ko teg ñu bëri signé ko des milliers de Sénégalais. Mm-hmm. pour un mandat d'arrêt international jëmale ci Macky président Macky mm-hmm. loolu